waaw jub na d'accord gis naa la ok. Thank you.

Hey yo! Hey yo! Come down! salaamaaleykum mbokk yi tey ñu ngi fii service bu boo maraîcher donc euh, le ministre a déployé de gros moyens pour stabiliser prix yu gars yi di yokk ci ñuy jugee dak ci boo maraîcher ci dem à l'intérieur pour mën a stabiliser prix yi donc euh, yii avec partenariat wu Dakar Dem Dikk nous avons amené des donc bus yi nii ils vont appliquer ay tarif yow normal ñu nar a permettre usagers yi ñu nar a dem ci région yi dem ci jàmm dikk ci jàmm tout ça c'est dans cette dynamique pour stabiliser prix yu conducteurs yi di yóbbu sur le terrain jërëjëf Donc aujourd'hui, on est là, nous avons beau maraîcher. Donc le ministre est venu pour, à Dakar pour stabiliser le il a déployé de gros moyens avec Dakar Demdik pour nous mener à l'intérieur du pays. mooy doog a am loolu nag yàlla ñi fi nekkoon amuñu activité tout seul day wàcc. loolu yow la nga ci xalaat. waaw. Ah. pour ngeen mën a dellu grâce ministère dafa indi mën a dem à l'intérieur du pays yow la nga ci xalaat avec des prix normaux depuis 7 heures du matin ba 15 000 lan laa wax am nañu ah salaamaaleykum Qatar ay bus pour nit mën a dem tranquillement tabaski yow loolu la nga ci xalaat ah. <laughs> waaw. sëñ <laughs> jaamu yéen ñëpp di ngeen def ay dem. lii mooy. buñ dem. indi nañ leen ay bus pour ngeen mën dem la nga ca xalaat.

Thank you. Era Colombo. Thank you.

kese donc tey ministre dafa déployé ak waa Dakar dem dikk ay bus pour ngeen mën a dem ci jàmm ñibbi si jàmm ci prix bu normal la nga ci xalaat. kontaan rek merci. Thank you.

jigéen sol. allez yéeg leen yéeg leen yéeg leen. laajte la da ngay laajte. aywaay yéen a ngi leen. jigéen sol jigéen sol. jigéen sol damay laajte rek kaay. ah. donc ñu fàttali ko tey ñi ngi nii ci boo maraîcher ñoo ñëw fii donc euh, ministre ministère des infrastructures et des transport terrestres et moo dé moo déployé bus yi partenariat ak waa ak waa Dakar Dem Dikk pour yóbbu ñu bëgg dem à l'intérieur du pays ci prix bu normal. donc tey ministre bi dafa indi ay bus pour ngeen mën a dem ci jàmm tabaski ñibbi ci jàmm ci prix bu normal la la moo ci sa xalaat. donc tey dañoo indi ay bus pour ngeen mën a dem ci tabaski si jàmm ñibbi ci jàmm ci prix bu normal.

Eh staff déedéet moom nee na oto bi Touba Touba Touba

Sonko day liggéey. Bambey

Sede, sede.

kon war na la wax soxna kon nee na après am na fi cinq jours yoo xam ne koy Thank you.

woon Diourbel ay ni ñu commencé ngeen. ana Diourbel. yàlla jàmm rek jàmm rek lañuy jàmm rek la ñuy def yàlla xam na loolu i dañ koy yeexee nit ñi ngi bëgg a rey ni xool oto yi bëgg def ci biir ñi ngi bëgg a rey ñi laa la wax nii ci métti gu méttee méttee métti te am yoo xam ne paas bi moom mënuñoo mën a dem dafa métti dañ cee war a gouvernement bi boobu ma ci war a carrément jël ci ay matuwaayam jël ay nit dugal leen ci biir ñu xool nit ñi sa sa sa saytu jaam yi métti na trop métti na trop wallaahi wallaahi métti na eh, vraiment kontaan naa ci lo ci wàllum euh, Diomaye Faye ak euh, Sonko lu ñu def ak ministre euh, ñu koy transport bi lu mu def vraiment kontaan nañu lool lool lool vraiment fii la war a yem yàlla sa nguur bi continuer fu ba adduna faaw ñun la ñuy ñaan ak sa bi ak ñu fi nekk yëpp maa ngi la ñuy gërëm bu baax a baax merci waay jërëjëf.

ñaanal ci jàmbaar ngeen def leen a naw lool macha allah jërëjëf Kaolack donc tey ñu fàttalikoo tey ñu ngi nii ci boo maraîcher donc ay moyens la ñu déployer tey pour ñu bëgg dem dans à l'intérieur du pays ñu mën a jël ay bis bu pare ci ay tarif yu normal comme ça ñu mën a tabaski ci jàpp delluwaat ci jàpp.

Kayak ke apa kan? Non, lei ma io non bi dafa fees. dama toog kaa leen kaa leen kaa leen toog. Thank you. Allô waaw waaw waaw wàcc sur le terrain jigéen da ngay wàcc sur le terrain ñu kontaan nañu bu baax a baax waaye kontaan nañu bu baax non non ana loppi Como se diria agora? Amara. Amara. As! As! As! non non xoolal oui ma. dama ne maa ne ñëwee leen rek la rek koy wax. Cameraman,

sécurité yëpp la ñuy yokkal sa dafa garaaw. beneen dina récupérer.

Yo la llevo, yo la llevo a ver. Ese. No, no, no, no, no.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

su ko defee ñu régler problème bi définitivement merci non pas pour yéen pour nous. juste un message à l'endroit des Sénégalais pour la jeunesse. waaw. Euh, bismillah. c'est pour qui ça. ah déedéet si en parce que mën nañu anglais. non en moom message tabaski wut quoi donc waa bismillah ah dañuy dañuy dañuy ñaanal sénégalais yëpp rek ci tabaski jàmm di ñaanal sénégalais yi nekk fii ak senegale yi nga xam ne ñoo nekk ca bitim réew rawatina ca makkatal mu karam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 kon daal ñi ngi ñaanal sénégalais yëpp tabaski jàmm ak salaam jërë